li waral ndaje bi mooy jaaxle ci lii xew ci sunum réew rawatina fii ci Ngoye Mbayar li fi xew mooy ki nga xam ne mooy Aquatech dafa fekk ñuy dundu sunu dund normal amuñu benn problème ndax forage bi daa am ñu ko saytu woon doomu réew mi mu liggéey fi xaalis bu baree baree bari boo xam ne forage bi mos sa jaar ci paan wala bu paanee xaalis bu koy dépendre dina fi gaaw a ne ñu mën koo récupérer defar ko te ma Masamba du yegg ma demba du yegg nu jékki-jékki sunu xaalis ak sunu forage ñu daldi di koy libéré ne xaalis bi jeex na forage bi dañu koy jébbal nguur nguur gi it li ñuy wax Aquatech société bu ñuy wax Aquatech moom la ñu koy jox nun askan bi yéegunu gannaaw yéegunu nag te doon fay ñeen fukk ñu dem ba ci biir ñu ne juróom fukk ngeen di fay te seen xaalis jeex na amatu leen fi benn xaalis askan bi bañ ne dootuñu fay ndox ndax Aquatech moom duñu teg derem ci loxoom Aquatech nag dem ba ci biir mu ànd ak ak sous-préfet ñu ñëw beceku ndar kam di dagg tiwo yi dëkk bi gis nga école baa ngi nii teen baa ngi nii xale école yaa ngi nii bu waxtu jotee képp ku génn kalaas amoo ndox boo utiliser mënoo naan ku naanu du sangu kon Aquatech rey nanu rey nanu kon gannaaw gannaaw rey nanu te nun soxlawuñu ko te it nee nañu problème mu état la moo ko fi indi te fii ci mbayaar gi makisal moo fi doon jël première mosuñu fi woteel kenn ku makisal kon bu ñu toogee ba askan bi di dundu lii mu jóge ci Macky Sall doonut lu nu foog doonut lu nu yaakaar kon soxlaatunu Aquatech mësuñu koo soxla Aquatech nanu abal indil nanu fi benn problème boo xam ne keroog muy besug ajuma lu ne mënoon na si xew lu ne mënoon na si xew ndax askan bi fippu nañ te soxlaatunu dara seen seen forage la ñu soxla wala seeni i kon nag loolu dara jaru ko nan nu abal. du di njaag préfet mooy njaag. parce que moom ci ci koor gi la ñëw ci diggu koor gi nga xam ne ci ci mara lañ nekk mu digg ci suñu teew yi dag ko ñoom ñëpp teew yëpp mu dag leen ci koor gi dafa xaar ba ko te des ay juróomi fan yooyu mu dag teew yi booba ba léegi amuñu ndox ñëw moom nag ñee na ba fii nee na moom incha allah di day ne euh, euh, euh, li nga xam ne mooy liggéey bi nii day continuer dag teew yi léegi nag ñun pare nañ pour di ko xaar su fekkee dee la bugg gënu ñu ñeme dee fu mu dee pare nañ ci négocier léegi nag lu ci des daal mooy lu mu lu lu mu lu ci am jël luñ ci góobee gar suñu gar ragaluñ ko benn yoon guddi ak bëccëg lu mu ci bañu bañu ko ci fu mu tollee pare nañu daal. problème ñu am ak moom mooy moom dafa indi Aquatech fii Aquatech comme dafa ñëw fii yokk suñu ndox mi te nu mu fi ñëwee baaxul parce que ndox mooy ñun jéego nañu ne ñu ne ak ci état bi day ñëw jël si farat bi dawoon nañ ko moom mais loolu lañ ci jëlee dañuy jékki-jékki ñu ñu gis ñoo xam ne dañuy dugg ci biir kër di yor kay yi nga xam moom na élèves yore ci moom lañ doon dagee dagee euh, li nga xam ne mooy rosi quoi duñu ko jox ñu ne lii la après ñu wax ñu ne lii lii euh, Aquatech ñoom ñoo ko indi fii quoi ñu ne ko déedéet loolu d'accord ci lii de Aquatech balaa mu ñëw fii nañu dajale ñun ñëpp ñu waxtaan ak ñoom mu wax nu ci yan condition lañ jëlee la jëlee forage bi su fekkee nangu nañu mu jël su fekkee nangu wuñu mu dégagé léegi nag defuñu ñu def ko au lieu mu def ko defu ko mu jëkki-jëkki ñëw rek jël suñu forage di ñu fay ko déjà cinquante te dèjà lañ doon fay te nañ amoon nañ ñaari daw am ñaari pompe am lépp dara man ko fi woon léegi nag mu ñëw fii bu koy mu bare li nga xam ne moo fi doon ruusee ñu ngi ko dewal ci suñu gafaka moom mu di ko yóbbu ñu duñ ko def mu jàpp ci gars yi cette personne jàpp leen lu mat at atum lim mu tëj leen kaso bi wal ku nag ñëw dak auditeur bi wal batiku ñëw dak dëgg diwo yi waaye fu mu toll nii moom pare nañu lim lay lu fu mu toll nii lu mu ko jaral jaral ñu ko ëpp incha allah. ñu sonn ci suñu taxawaay bi tey. sonn nañ ci ndox mi ak root bi teen yi amatuñu ndox fi nekk nii teen bi jeex na instant yi depuis deux mois ñu ngi si taxawaalu fu nekk dugg nañ fi pour am ndox daw nañ ci robinet robinet boo dem mu tëj instant bi sonn nañ suñ doom yi si école yi naanatuñ suñ ñi nekk ci dispensaire yi dund ci dund bu baax suñ cin yi balaañ koo taal dañoo taataan fu ne doog am ndox sonn nañ léegi nag bañ koy jooytu dafa yàgg dañoo yàggoon a bëgg lii li ñu manqué ci boppam moo bëri ndox mi amuñu ko courant bi amuñu ko école yi amuñu dara ñoo ngi jooytu tout le temps bëgg ku ñu dimbale nag.